ñu woon ca Armelia euh, gis nga ni ko Ismaïla Lo waxee maanaam li fa nekkoon ci mbooloo kenn xamu nu mu toll mbooloo mu takkoo takku takku hmm? mbooloo moom rek doy na yaakaar ndax dañuy faral di wax ne maanaam bu la benn mbooloo de gunge hmm. suma ma juumalee ñeent fukk la ñu wax hmm. euh, yàlla du ñàkk ci biir ñeent fukk yi mu am kenn kum ci rus ba jéggal la say bàkkaar te lañ fa gis tey mën nañ jàpp ne mbooloo mu takkoo takku takku takku am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar ci nombre maanaam année yi nga xamante ne dem na ko ci. nga baal man il faut ma dàggale de. Ah, mbooloo moom bisimilah mu problème bisimilah yéenay moomay kàddu gi yéenay moomay kàddu gi. Mhm. la depuis le matin la mbooloo moom depuis sama depuis le matin la. Hmm? wallahi depuis le matin la à partir de l'hôpital Fann xam naa Fann ñoom tey aussi c'est pareil. Hmm. man tànk bi may xëy du dem du dugg Fann. Mhm. di daw c'est bon pour ma sow sama doom et cetera Fally ma gis kaar yu bari léegi oto man pour man dafa xam nga comme morgue la ku nekk da nga jël say néew dëgg la dëgg benn bi yëpp benn bi moo leen tax moo leen tax moo leen tax a bouger seetal loolu benn bi seetal loolu après nga toog ku ñëwul après tàng gis mu commencé wàññeeku ndànk ndànk ndànk nag mu depuis ce matin la hmm. yàlla suuf woyof si koom allahumma amin amin jàll ba ko cat jiitu ci bambelam kii jërëjëf Diaby maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di gërëm El Hadj Bakay Mbaye mi fi nekkoon sànq ba léegi di gërëm El Hadj Ndiaye di gërëm sama mag ci toog di Ismaïla hmm. sama mag sama kilifa sama sëriñ di ku baax di wax ni rek ginnaaw bi ñu jàllee ñëpp ñii dañ leen war a ñaanal gudd fan ñii ñun ñii ci suñu ñàq ku ci nekk war ngaa jël addiya di leen jox ndax dañoo jiite liggéey bi te mosuñu ko yàq benn yoon li muy wax man ku ko dund laa ndax man dama dund seen biir hmm. moom mi bi mu nekkee super jamono maa ngi fa woon di leen ataayaal ñu may yónni may dem ma jàng ci ñoom te ku ci nekk jàng naa ci ñoom diine lislaam jub baax gore ba pare am diine ni mu ko waxee noonu la amee coon du faat waxtu hmm? coon ñi mi dëggam kenn xamu lan la coon sekk li naan nit balaa nga koy xam faw nga jege ko mhm. mooy coon sekk bu nu doon wax ay naqar deret coon sekk c'est parce que ñi mi dëgg gi mu doon wax la da ngay wax lii fen ci nit léegi mu ne aa xaaral ma woo ko mhm. wala ne lay yow kat kii wax na lii mbaalool dëgg la ba mu ga kenn du dem di ko wax leen na xeebul kenn te ku gis nu mu yaree njabootam gi coon hmm. doomu coon sekk yi da nga xam ni coon ku am rigueur la ci yar doom yi kenn ñemew ko duñ ñeme sax mais dañ ko jox cër Ismaïla Lo mi noonu la mel toujours ma ko mu may reetaan naan ma bàyyi la ngay wax man ko dinaa ko wax lu baax dan lu baax dan leen di seede parce que defe na ni musique boo ko defee rek lu bon ngay def te incha allah yàlla na yéex. yuuxu yomal xiyaam yuuxu dina jube fan ko foogeel woon. tamit dëgg ndax ñii dina lakk ñu bëri. man nag moom du ma dara man moom waaw bu ma ci kenn boole sax mais kii boo duggee këram léegi lan ci doon waxtaan avant ñuy jëf ñu ni jox antenne bi. ñaari jàkka yor këram bu ci nekk moo koy jiite. weeru ko jot moom doon jiite naafila teg ci ñaan barki démb rek la frère am gaañu ñu yóbbu ko Tëngéej ca Yoff fa ca ca ca ca sëg ya fan denc maam Adama loo muy ku baax di bëgg coon man loolu xam naa ko parce que duo bi mu def ak Thione Seck keroog bi mu yéegee daf ni coon waxuma la woon woy bi beneen woy laa la waxoon mhm. mu ni ko nag man maa sentir pour nga woy ci morceau bi pour te dire lii xale yi tey di def di xuloo di ñante ñii xam naa bu buñ ko gisee sax di naan am pincement de cœur mhm. ndax ñi ragalante wu ñu woon. moo dana baax ci kanam mu wax ñu ñoom naka lañ dëkkee woon. parce que am lu am solo la mais dama lay bàyyi nga loolu xale yi dañ war a jàngat ndax nag xëccoo bi dara jar ko fi de. coono ngi dem na tey te keneen du fi des. dafa mm. war di rafet dafa rafet. yàlla na ko yàlla xare ci àddina gën a kawe. nit ku baax la woon. nit ku gore nit ku mën social. saa yoo ñëwoon buntu kër da ngay fekk ay maire ay patron ku ci nekk mu amel la sa dépense ku ci nekk mu amel la dépense loolu man maa ko fekkee yónni na ma ba tay ci ay kër nit may yóbbu ay koom-koom ci ay doomu aadama barke Seydina Muhammad mm-hmm. donc nit ñi dinañ ko jooy ndax dootuñu ko gis mm-hmm. waaye fu mu tëdd moom xam na ko du fa du fa sonn incha allah jërëjëf sant yàlla Diallo ah, jërëjëf vraiment témoignage bi rafet na Ismaïla euh, salaam mu ngi koy wax léegi parce que nekkin lu am solo la xam nga tey suñu jamono ji dafa xaw a tëradi maa la sànq nee naa mu jowu leen puso bi te réerul ci yéen waaye mujjee puso mu réer ci yéen ci yow gàcce mënu koo gën a rëy. Mhm. te ñi nga xamante ne moo ji maanaam nouvelle génération bi baax na tamit ñu leen di bàyyi xel di jàng ci yéen naka ngeen nekkee woon yéen xamante ne maanaam à l'époque parce que du ngeen ay adversaire dama koy faral di wax xëy na mënoon ngeen nekk ay concurrent mais vous n'étiez def na yaa ngi woon ak sa groupe gannaaw bu nga super jamono moom aussi gannaaw bu mu defee son parcours ba taxawal li nga xam ne moo di Ramdan Youssou Ndour nga taxawal lu super étoile Oumar euh, jamono gannaaw ba nga fa jógee ainsi de suite Baba Maal taxawal li nga xam moo di la dandele ñoon mais n'empêche fu ñu leen gis rek da ngay gis ku nekk dafay bëgg lekk morom bi ndax tellement affection bi nga xamante ne moo am ci morom macha allah man daf ma yéem ci yéen daal affaire mais loolu moom mii nekk na super jamono waaw moom Omar Pène Baye Diagne ak Grand Bass moom bu Omar Pène di woy da nga koy gis maa doon jël sax café di ko tegal noonu day teg chaise yore gitaaram ñu tegal ko micro mu muy accompagnement di aw Omar Pène buy woy Omar Pène di ko aw mhm. Baye Diagne di tëggu Tumba di aw waale mhm. ñoom ñëpp ku ci nekk nekk ay ténor bokk nday bokk baay bu nu gisantee ku ci nekk mayee xaaxataay kaf ree te loolu amatul ci xale yi jaxal na ma na mais defe naa ne nañ sant yàlla bu baax comme loolu laa wax rek dinaa yàlla daf ñuy tëral loo xam ne